nii Ousmane Sonko lu mu sant jeunesse bi ñu def ko il doit commencer par aller vers ça demander à cette jeunesse là ñi nga xam ne ñu ngi toog di taxawaale ci bopp koñ bi te bëggoon projet bi bëgg ko ànd ak moom nañ leen dem bay maintenant il demandera dans ce cas au ministre de l'agriculture de mm. d'amener les accompagnements pour que agriculture mu a réussir su ko defee rek on va atteindre la, la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire diversifier l'agriculture pour permettre un développement de notre pays d'une souveraineté. Si vous avez une souveraineté, vous avez hmm. njëkk obligatoirement day wàcc parce que dañuy béy di dundee te ñoo koy jaay. d'accord amul denn loo xamante ne day impacté et ça nous permettra d'ici là doo ko jot ci dividende pétrole beeg gaz bi suñ jotee ci dividende pétrole gaz bi nous devons préparer le tarissement des puits. ok ce que l'Arabie saoudite est en train de faire. d'accord xam na ni teenu pétrole yi day diig parce que ba ñu commencé produire yàgg na. Mhm. ils sont en train de préparer les tarissements des puits par par une autre par un autre secteur qui est le football à travers le tourisme footballistique. donc c'est une vision qui est là. Mmh. que les gens peuvent partager. ok alors sànq bi ngay wax élargissement assiette fiscale sama xel dafa dem aussi ci dette fiscale bi nga xam ne sunu mbokk yi am nañ ko. mais loolu yëpp tam mun nañ leen ci joxoñ yéen parce que euh, lu jëm ci wàllu. Euh, fii moom luy njiit fii lu fi xew Sénégal. baale. non dama ne exonération yi je je vais vous dire c' est pas au premier président la République d' exonérer la fiscal la fiscalité. bëri na fi nag ñu leen jege woon. ñu ne duñu fay impôt. déglu rek déglu waxtaan dama ne. président bi muy dem sax diggoon na. presse dañu d' accord dañu d' dañuy d' ñun ñëpp. xam nga man c' est comme si on était en de faire le procès d' non mais parce que tout moi, est lié Adama mënuñu bañ a mënuñu wax ci li xew tey te duñu leen ci tudd quand même moi moi moi moi dama bëgg nekk ci leneen ñëpp dañu d'accord ni impôt fiscalité dañ ko mais lu tax ñu bëgg ko politiser parce que nit ñi dañ ko politiser woon démb waaw wala de nit ko politiser démb ah, lan lañ fi wax lu ñu politiser mooy ba ñu ba ñu ba ñu defee redressement fiscal euh, Déma Déma Dia def ko wal Walfadjri dañ ne dañu bëgg tëj télé yooyu Macky Sall dafa bëgg tëj télé yooyu ils n'ont pas vu que dañu war a fay yaa que Bassirou Diomaye qui était du Pastef moo dem toog ci plateau ne leen redressement bi maa ko def du Macky Sall et d'ailleurs c'est ça qui a valu le non soutien de Bougane Gueye Dany à à Bassirou Diomaye parce que hmm. il l'a reconnu mais malheureusement le Sénégalais lambda. loolu la Bougane méré Diomaye ah, mais bien sûr. j'ai dit boobu ah Bougane ne woon day xaar deuxième tour nga ne loolu moo tax. Euh, xaar deuxième tour amu ci gis nga na ma na baal nag sama xarit la ce que je veux dire mais démb ak barke démb dañ ko politiser du dëgg te pourtant kenn taxawul ñi taxaw tey à basiru Bassirou Diomaye kenn taxawuloon ki nekk ci ngànk ju mu kenn taxawuloon ne dañu war a fay impôt dañ ne dañu bëgg tëj télé yi voilà donc. ça les a rattrapés man nag du ma waxee noonu man dama ne dañu war a fay mais suñu waree fay nañ leen ko defal moratoire parce que am na ci impôt domaine ay moratoire na ci nga def la possibilité de faire des moratoires. d'ailleurs ba ñuy fay la ñu loolu la ñu. très bien pour ñu defal leen moratoire non c'est pas il faut ils doivent aller aux impôts et mhm. négocier pour ñu xool naka la def ba fay ko parce que kenn mësul bañ fay impôt mais malheureusement ñi fi nekk ñi ngànk réew mi dañ ko politiser woon démb ak barki démb dañoo taxawoon ne dañu bëgg tëj ay tele dañu bëgg a bâillonner notre démocratie dañu bëgg a xeex les journalistes. mais est-ce que ñu fi nekkoon démb barki démb muy muy muy impôt et domaine lan la ñu mën a toogee di di seetaan ba euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di entreprise de presse yooyu loonu am dette yu toll noonu tey. est-ce que tu sais que non dañuy dem recouvrement les agents des impôts et domaines dañuy dem recouvrement tout le temps pour ñi nga xam ne dañoo war a fay fiscalité mais suñ demee recouvrement fekk ñu fa waaj dañuy dellu soit ñëw toog et lay doon parce que xam nañu tôt ou tard dañ lay jot c'est ça amuñu seen naatangoo yu ñu fi convoqué woon fii benn yàggul ñu ne li ñu bind moo tax li ñu bind c'est parce que dañu commencé non non dañu bëgg a bâillonner la presse ok ñu bëgg a bâillonner la presse démb ba quelqu'un jëlee rapport rapport rapport gendarmerie rapport secret bu gendarmerie toog di ko lire ci laay bañ ko convoqué l'actuel premier ministre daf ko soutenir ne dañu bëgg tëj laa ñu journaliste cest à loolu xam nga lu muy wane évitons de politiser certaines choses nañu nangu ni lii du yoon ñu ne du yoon moo tax man la position que j'avais d'hier hier quand on était au pouvoir c'est la même position que j'aurais quand quand j'étais à l'opposition parce que bëgguma sama déclaration varier c'est des positions de principe mm.